feebar tey bu ma la doon laaj ne la lan mooy feebar lan nga may toon feebar. feebar mooy seytaane. mooy seytaane. Ah. kon tey bu ma xëyee sama yaram neexul. ma am ay jàngoro seytaane moo ko jàpp. feebar mooy seytaane seytaane mooy indi feebar bu seytaane amul feebar du woon am. d'accord. seytaane moo indi feebar feebar bu mënti doon nag seytaane moo ko sabab. Hmm. seytaane moo indi feebar. feebar bu mënti doon. mooy lan mooy lan moo tax muy andi feebar bu doon di ko teg ci kaw nit. parce que dafa safaanoo ak yàlla moom bëggul yàlla. dëgg la noonu yàlla la. Mm-hmm. su yàlla defaree ba pare mooy indi anomalie ci yàlla defee maanaam mm-hmm. ko tubaab bi defaree ba pare. waaw maanaam ki ko paanal. Mm-hmm. noonu tubaab bi la. Ah. yàlla dafa defar doomu aadama. waaw seytaane ñëw bu bëggul li yàlla defar moom mu ñëw di yàq. mu ñëw di yàq. seytaane moom mooy noonu yàlla. lépp loo xam ne lu baax la. bu amee safaan rek ci moom la liggéey. dëkk la yàlla yàlla lu baax rek la mhm. moo tax boo gisee ñu njëkk ña. Mhm. dañoo guddoon fan. waaw dañoo guddoon. waaw gis nga bàkkaar. dëkk la moo indi gàtt fan. moo indi euh, yëre yi màgget. waaw maanaam yére bu màgget. waaw bàkkaar moo ko indi. bàkkaar bàkkaar moo koy waral mais bàkkaar amutoon. Hmm. nit dina dund ba dee du du changer yëre. waaw bàkkaar moo indi pollution. pollution bàkkaar moo indi. Euh, poussière. poussière loolu lépp bàkkaar moo ko indi mais sinon kon loolu du am. loolu du am bàkkaar moom indi maladie. mooy indi maladie. mooy indi sécheresse. bàkkaar mooy indi euh, kii ñu koy waxee si. xanaa ay tsunami traitement tremblement de terre. yëpp bàkkaar a ko indi. bàkkaar moo koy indi bàkkaar moo koy waral. macha allah uh-huh. seytaane booy poussé jaam uh-huh. pour mu def ko. d'accord mais des fois da ngay dégg ay nit naan la da feebar nattu la boo xamante ne yàlla moo la ko teg. waaw mais xam nga loolu dafa nekk ci wàllu ngëm. dafa nekk ci wàllu ngëm. mu demee ba ci wàllu ngëm maanaam saytaane bu la deba da tegee feebar. Mm-hmm. dañ lay wax na la na nga muñ. Mm-hmm. muñ boobu la ñuy ooyee nattu. Oh. léegi nag yàlla wax na ne dina dina nattu jullit ñi ci ñàkk. ci ñàkk. dina leen nattu ci meññeenteef. Mm-hmm. dina leen nattu ci njàqare. dëgg la waaye dafa wax ne yonent saa salaam na nga béggal ñi nga xam ne bu leen ba dikkalee mhm. nañ wax ñun ci yàlla lañ jugee ci yàlla lañuy dellu waaw loolu alxuraan la alxuraan la boobu nag mhm. yàlla moo wax ne moo koy teg jaam bi mhm. su lu tax li saytaane di teg jaam bi bu ci yàlla ànd du sotti d'accord waaye yàlla dafay nekk koo xam ne dafay jay jaam bu mu bind daf lay wakiil sa coobare wakiil la sa coobare sa xalaat macha allah léegi tëral la ay yoon ne la lii de gërëmu ma ko lii de gërëm naa ko. Mm-hmm. léegi yow booy jug di dem ci lu yàlla gërëmul. Mm-hmm. kattan li nga amee ba dafa dem xel mi nga amee ba di ko jëfandikoo. Mm-hmm. loolu alal yàlla la moo la seetaan nga ba nga la loolu moo tax mooy jëf yàlla ci loolu. macha allah waaye yàlla ci boppam xel mi mu la may nga la tànnal lu baaxal lu bon. loolu mooy sa responsabilité ci jëf ja. d'accord léegi nag boo defee choix bu baax bi. mu wax ne yow def na lu baax fekk lépp moo ko def ndax boo ko neexoon mu téye kattanam. dëgg la su ko neexoon mu su ko neexoon mu récupérer sa sas sa yëg-yëg. Mhm. ba loolu du am. Mhm. mais moom daf lay seet ndax yàlla wax na ne dama leen bind indi leen ci àddina di xool ci yéen ana kan moo gën a rafet jëf.